Sunugal 24 point net l'information à sa la. maa lay bu baax a baax. Euh, ñu ngi yëmeeku jamono ji nga xamante ne nii mooy fii Sénégal mooy mbirum coowal drogue parce que euh, autorité teg nañ ci loxo mais actuellement dañoo annoncé nit ñi may maanaam li ñu jàpp lu ëpp dafa réer loolu tamit sa xalaat ci loolu. waaw affaire moom dafa luus quoi. ndax boo déggee ñu jàpp lu bëree bëri li ci bëree bëri réeraat tamit ñoom loo boo xoolee ñoom seen biir la rek quoi waaw ndax munoo munoo munoo munoo jàpp ne dañoo ñëw saataat ko ci ñoom wala dañ koo ñëw dugalaat ko feneen buñ xoolee nañ def ba jàpp ko rek nañ def ba jàpp ko ba nungu ko ci ñi ko ñi ko yoroon buñ xoolee seen biir dañ xam affaire bi fu mu dugg ko mhm. te sa conseil tey si biir jeunesse bi nga xamante ne euh, tey mooy jeunesse Sénégal bi loo leen di wax ci loolu. waaw jeunesse bi lenn laa leen di conseil rek loo xam te ni maam daf lay tàggaleeg sa sogo di la yàqal lu bëree bëri sa avenir pour man nga bàyyi ko moo gën mais loo xam ne dañ koy utiliser amul la benn ba amul la benn benn benn benn avantage baaxul sa sante nga koy utiliser loolu baaxul. parce que moom nit du n'importe qui moo mën a dugg foofu di ko sàcc di ko yóbbu waaw léegi daal li am solo mooy nañu leeral sénégalais yi quoi parce que alxuraan da ne ataamuroona naasa bil birri wa tansawna anfusakum balaa ngaa jubbante kenn yow na nga jub ba pare. parce que mënuñu comprendre tey xale yi jàpp ci mbedd bi benn fisalu yàmba ñu lay tëj ay 15 jours ay 1 mois bloc bu mel noonu ñu xëy na réer na nu may du n'importe qui parce que drogue du ku amul xaalis mënoo ko jëfandikoo nañ waxante dëgg parce que Sénégal fi mu toll nii jeunes lu ñu lekk ak lu ñu naan lañ gën a tal parce que tey ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a teg loxo du ñu leen teg loxo te xam nañ leen. parce que tey ji bu fekkee ne nag dañu ko bëgg a def ku am nday ku ma amul nday wala foog nga am parce que maa ngi dégg ci xibaar ñu keneen ki ci bokk dafa am loxo ci kaw xawma nu mu fa demee noonu bu fekkee réew mi noonu lañu ko bëgg a dox réew mi di dox loi dafa war a valable pour tout le monde muy man yow ak keneen ak keneen a ci yem dafa war a valable ci kii parce que papaam loxo bu gudd la wala bokk na ci état wala bokku ci loolu lépp buñ ko dee def dëkk bi du jaar yoon képp ku wàcc yoon dañ la war teg yoon mais du nekkee ne nag léegi xaalis bi dafa réer drogue bi dafa réer léegi ñu ne walla xamuñ fu mu demee ah dafay doy waar. day doy waar li am solo mooy nañ nañ nañ nañ nañuy doxal dëgg nañuy doxal dëgg parce que am-am nañ koy jaarale ci amin bu lew bu sell parce que loolu mooy àdduna mais bu fekkee nag dañu bëgg def ne nit ki noo ko amee baax na tous les moyens sont yaa ngi dégg nit ñi di ko wax ah réew moom day yàqu. day moom day yàqu. mais bu fekkee di tey jii tey ki mérito place duñ ko fa teg ki fa mérito lañ fay teg réew mi day gën a yàqu day gis koo xam benn laxasu yàmbaa lañ ko jàppe tëj ko 2 mois 3 mois kii ñu jàppee ko dorog bu bëri bàyyi ko mu dem yoonam parce que am na loxo bu gudd loolu bokk na ci yàq li yàq réew mi nañu waxante dëgg loolu rek yàq réew mi li li am solo daal mooy bu fekkee dañoo bëgg réew mi dox nañuy doxal dëgg yamale ñëpp mu bañ am ku ma am nday ku ma amul bàyyi amul kii ci état la bokk ku ci bokk ku ci bokk ak foo mën di nekk ak kër goo mën a bokk même boo de kilifa diine sax dañ laa war a jël teg la ci yoon parce que loolu mooy doxal dëkk bi. justement ñu gis jamono ji ñu toll mi nga xamante ne mooy drogue bi nga xamante ne autorité dañ ko teg loxo mais ñu dem ba ci biir ñu dégg seen yeneen seen yeneen information ne drogue bi euh, ëpp dafa réer te lan moo xalaatu sénégalais tey ci lool bon en fait c'est un peu bizarre ah. parce que je crois bien que ne waa douane ñoo ko saisir non. Mhm. donc bu ñu ko saisir normalement war nañ ko mën a def ci endroit bu bu bu sûr quoi. kon du coup bu disparaître rek bon dama jàpp ne ci seen faute la seen faute la quoi xaw ma nag sa qu'il en réellement mais jàpp ne bu ñu jàpp naa ne bu ñu saisiree drogue bu réeree rek responsabilité dañ ko war a portaay seen biir waaw. mais tey kon ak tamit lan ñoom instant ñoom yoon dañ la war a topp wala il faut ñu jàpp leen woo leen tamit enquête leen pour xam fu drogue bi nekk. waaw mais effectivement parce que drogue lu sérieux la quoi loo xamante ne day yàq société buñ ko saisiree normalement bon nu ñu def ba saisir ko. bu réeraatee seen doo tamit day xaw a day xaw a délicat quoi day xaw a délicat waaw. loolu mooy niñ defoon ba ba jàpp ñu ko yor am naa yaakaar ne suñ ko defaatee danañ xam fi drogue bi dugg man loolu daal mooy sama xalaat daal te man li ma jàpp sama gëm-gëm boobu jàpp naa tamit réerut xëy na ñoom bu ñu defee enquête seen biir euh, parce que euh, Sénégal mën nañ côté boobu daal bu ñu defee enquête danañ xam fi mu nekk daal man loolu laa jàpp waaw. waaw euh, fa mel ne réew am kumba am day kumba amul bàyyi li nga xamante ne mooy cool drogue bi. parce que tey bu fekkoon tey ñu jàpp nit ki kenn koo xamante ne fisiru yamba dañ la teg si yoon tëj la euh, daan la lu am euh, daan yu métti daal kon tey ban euh, maanaam maturité bi gars yi war jël si affaire drogue boobu. waaw lool moom du réew mi rek bu ñu ne réew mi rek réew moo dem am na fa li ma jàpp boog réew moo dem am na fa waaw parce que réew mu ma mafia amul fenn en tout daal nañ dawal yërmande daal xool daal nuñ ko jima réglé seen biir daal man daal loolaa loolaa gën a gis quoi. waaw tey loolu conseil jeunesse sénégalais yi say si loolu. waaw man li ma leen di conseil mooy nañ bàyyi xaalis dañ koy lijjanti wala ñu jàpp ne boo jaayee doro rek du la may xaalis wala yàmbaa wala leen parce que dëkk bi li ñu fi mën a liggéey bëri na lu bëree bëri nañ ko fay liggéey instant ndaw yi dañoo war a góorgóorlu gëm seen bopp ji ma ñafe def na ñun ñii di taxale boo taxalee yàlla suñu borom dina dimbale parce que bagage chinois yi bëri fi ñun ñëpp mën nañ ciy liggéey ñun ndaw ñëpp mais instant ñun Sénégal xaalis affaire lijjanti la quoi te lu ñuy lijjanti dëgg la xëy na dañ koy lijjanti mais lijjanti bu ànd ak liggéey lay doon quoi man loolu laa gëm. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur, c'est ici même Sunugal 24 point